de ces consommateurs est-ce que le fait de de jël ko ci mel ni Momar Ndao nga nga def ko un conseil de ministre ba pare nga dugal ko aussi si si kuréel boo xam ne euh, lépp lu ñeel euh, wàllu location ak yooyu noonu si xalaat ak lépp daf ciy bokk est loolu aussi c'était pas une une une une recherche euh, une recherche de de solution. Mm-hmm. bu mm bu efficace parce que quand même à un moment donné gisoon nañu taxaw bu mu amoon. bu mu amoon je dis bien parce que je le conjugue désormais mm -hmm. au, au passé euh, du côté des des waaw du côté des des des des mais maintenant est-ce que aussi du faute société civile bi ñoo xam ne parfois da ngay am benn posture bi ba ba nit ñi jàpp na yow vraiment foo mënti nekk di nga fa di nga fa défendre les vraies causes mais une fois que ñu ñu woo la parce que taxaw nga ba fës ci loolu ñu woo la da ngay changer complètement de posture est-ce que loolu aussi du du du du bokkul ci problème li nga wax c'est tellement vrai que ñun moom Ndao mosuñu ko considérer comme association de cons parce que ko considérer comme association de consommateurs c'est un affairiste des un groupe d'affaires qui est là pour ses propres intérêts la ay poste ministre lay wut ay poste sénateur lay wut ay poste président de conseil d'administration lay wut di créer benn conflit d'intérêt boo xam ne jamais il ne s'est battu pour les consommateurs jamais euh, il n'a pris euh, point pieds et mains pour les consommateurs mais il consomme les consommateurs en réalité il vit sur le dos des consommateurs. chaque jour moo ko comme Axif aussi ah mais ñun Axif xaaral ma wax la ñun Axif suñu position mos la changé. suñu ñun dañu am benn domaine de prédilection. peut-être que vous n'avez yow yàgg nga ma couvrir. est-ce que ñun ci benn conseil de surveillance nekkuñ ci benn conseil d'administration l'État ne nous aide pas. bu ñu soxla woon xaalis dëgg ci banque yi dañuy dem tàllal leen loxo. ñu jox ñu def nañu banque yi ñu reconnaître ñu actif. donc waaw duñ mën a reconnaître parce que notre discours ne les arrange pas. Mm-hmm. mais population bi ñoom reconnaître nañ parce que ils se les populations bu koy vivre moom di ko dund mais xam na ni li may wax dafa tegu donc ñoom mënuñ ñu bëgg mais mais est-ce que loolu